ab mbir mu doy waar moom moo xew ak ci quartier bi ñuy dippee quartier Jàmmaweli nekk foofee ca région bu Tambacounda benn waay boo xamante ne nii ab jakartaman la moom moo fa daal di topp ab benn couple boo xamante ne nii jàpp na ne couple biile ñaa nga jëm ci àll boobule ci li ni mel nag ca la leen fekkee ca digg àll ba ñoom ñaar ñuy def li nga xamante ne moom moo di rapport sexuel maanaam di def li nga xamante ne moom moo di yëfum saay-saay ci li ni mel nag ca la leen jakarta man bi fekkee foofu pour wax leen li nga xamante ne nii moom moo di moom ab policier la te da leen bëgg a yóbbu fi nga xamante ne moom moo ci commissariat ba ci li ni mel nag ca la uh, waaja maanaam uh, ki nga xamante ne moom moo nekkoon ak xale bu jigéen ba daal di daw uh, bàyyi fa ki nga xamante ne moom moo di soxna soosulee moom jakarta man ba nag ba waaja dawee la mu xamal soxna si mooy moom ab policier la te bu sekkut ak moom li nga xamante ne moom moo di rapport sexuel da koy daal di yóbbu si fi nga xamante ne moom moo ci commissariat yaaba ca la xale bu jigéen ba daal di bañee nekk foofu di ba bëggoon tëddee ki nga xamante ne moom moo di xale bu jigéen ba waaye xale bu jigéen ba dafa daal di ci suuf nag ca la jakartamaan ba nga xamante dafa jàppee ne moom ab policier la daal di bëggoon nangu li nga xamante ne moom moo di téléphone xale bu jigéen ba pour bañ rek ku ko woo mu daal di koy jot ginnaaw bi nga xamante ne bëggoon na sekk ak moom rapport sexuel xale bu jigéen ba teewul dafa daal di bañ ginnaaw bi nga xamante ne enquêteur ya laaj nañ ko ci li ni mel moom xale xale bu jigéen ba muy expliqué di wax ne sax moom faux policier boobule ah, bëggoon na koo tëddee ba sonn mu daal di bañ ci li ni mel nag ca la faux policier ba daal di jëlee li nga xamante ne moom moo di téléphone comme si ka day woo li nga xamante ne moo moom moo nekk ay collègue policier wam waaye ndaw sa dafa muus lool ginnaaw bi nga xamante ne nag xel ma daal di nay na ci pour wax ne waa jile nekkul benn yoon ab policier ci li ni mel nag ca la daal di bañee daal di sekk ak moom li nga xamante ne moom moo di rapport sexuel ak fausse policier boobule moom waaja nag bi mu sonnee ba sonn xam ne foofule munu faa am dara ak xale bu jigéen boobule ca mujjee daal di taalaat li nga xamante ne moom moo di jakartaawam daal di mujjee daw mbir moomule ma nga xew ca foofu foofule ginnaaw bi nga xamante ne a guddi na lool heure boobu nag ma nga tombé woon li nga xamante moom moo di ay vingt deux heures foofee ca diwaanu Tambacounda mbir ma nag daal di mujjee ci li nga xamante ne moom moo di loxoy yoon ginnaaw ci li nga xamante ne ni nag moom mooy xale bu jigéen boobule mujj naa jiitu ki nga xamante ne ni moom moo di Jakarta man boobule ca police ba pour mën a wax li li nga xamante ne ni moom la ko Jakarta man xamante ne ni dafa ñëwoon di leen wax ne la moom ab policier la ndakate yow du ab policier ci li ni mel nag ca la police daal defee li nga xamante ne moom moo di ab enquête pour xamal li nga xamante ne nii moom mooy ah, ndaw soosale ne waa joojulee du benn yoon ab policier waaja nag ñu ngi ko mujjee teg loxo ba ñu yóbbu ko fi nga xamante ne moom moo di ab garde à ginnaaw ci loolu nag ca lañ ko daal di àtte pour daal di leeral mbir moomulee ñu mujjee koo tëj li nga xamante ne moom moo di deux ans de prison bi nga xamante ne nii ñaari weer dong la ca fas yéene woon tëdd